ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu mbare ñi nga àndal fi may tàmbali ay wax mooy Serigne Moustapha Bousso mii lu baax lu baax li nga wax ci moom moom laa lay gën a dëgëral ngir boo gisee mu ngi sama loxol ndeyjoor di sama loxol càmmoñ ci téem la ak taxawaayam ak pastéefam ñu fi nekk yëpp ay ay rakkam lañu ñu dees di ay baayam waaye féeti na ci wet boo xam ne euh, ak am nangoom moo tax mu féetewul nga tax na kon bala maa tàmbali yenn waxtaan ngërëm ñu ko gërëm moom laa lay jëkk seereel ngir yow li ñu jëflante guraaw man lenn loo xam ne li ci moom la jaar li ci ci man sa dikk bi ñu ci waxtaane jeeg ñëw géej bis béeg yëpp ci moom mii la jaar ñu ñu ma féete ci sa wet ñu la ma féete ci wet yëpp dal na ko yàlla féete féete